sant yàlla nag jot naa ba dem boofu bu amee tàng-tàng bi man maa daw génn sama néeg boobu coolaate woon sax génn sama néeg jékki-jékki dégg non xale yi dee nañ moo waxat alhamdulilah sant parce que lépp nee naa muy naqar muy bànneex sant yàlla topp ba ma ko defee nag ci daw di dem dajeeg sama doom di daw ma xam ne kon sama doom nice may nag léegi ca des a daa xoolee ci la mu nekk ba ma demee fekk mu demee noonu suñu borom doxee noonu. sànq bu ngeen gis ngeen taxaw ci buñu kër gi noonu may dugg si beneen ki ngeen gis noonu mooy sama doom mag la sànq xel mi dafa dem démb laa jógee rafiné li parce que moom moo njëkk a gis moo daj bi moo daj oto bi médecin bi moo ko jàpp moo rafetlu ne xel mi dem kay jaay nii hôpital laaj fan fan laaj kay rafiné li mbaa jógee démb fa laa nekkoon bay une heure deux heures matin parce que loolu doomu aadama bu ko gis rek dina doy waar man mii sant yàlla moo tax damaa sand yàlla ndax du sama kattan du leen suñ borom moo da ci man ma gis ko maanaam maîtriser ko bu ni ma waxee yow. gannaaw ba nga demee ba gis xale yi ki nga xamante ni tamit moom moo ko njëkk a gis tey yàlla dogal li mu am li nga xamante mooy traumatisme ci moom mm-hmm. yow yàlla jàppale la ba nga am dëgërlaay bi que mën nga ñu wax exactement nag ak fekkee yan anam nga leen fekk. waaw bi gis leen bi parce que sama nee naa dama daw day sama doom fokk di dem ak moom maa ngi daw di xool keneen ki ca dem nekk ba ma demee fekk mu sëgg ci fauteuil bi nii dugal tànk ci suuf sëgg ci fauteuil bi noonu la deewee man nag comme yàlla ma parce que boobu mën naa nekk ci benn affaire ñëw laal xale yooyu mais damaa bàyyi xale bi ñu gars yi bàyyi leen ñu bàyyi ma woo yoon bu lu woon yoon dafa am ci réew mi kon amal na naa xool la moo manqué ci moom fu mu gaañoo nan la demee mais dama ne lii du sama liggéey lii liggéey yoon la ñu woo yoon te ko seen loxo ñu war a enquête ñu war a constaté constaté ñu war a pompe pompe yoon def liggéeyam. dañ ko jëlee suñ koor gi yóbbu nañ koor bi boobu ñun dañ lépp ci ñun seen liggéey la loolu moo lay wane ni réew mi am na yoon dañaa bàyyi ñoom seen liggéey kon ba léegi seen liggéey moo war a continuer ba keroog ñu jox ba keroog ñu gis verdict bi verdict bi nag daa war a feeñ daa war a feeñ ndax ñun nee nañ la ay xale yu ndaw lañ di liggéey amuñu problème mu dépense ñu ngi sant yàlla bu baax amuñu problème mu ndëgër laay ñu ngi sant yàlla bu baax. boobu ba léegi suñu doom réer nañ kenn dégguñu ci yenn affaire yi kenn dégguñu ci benn problème fu ñu war a dugg dugg nañ fa fu ñu war a génn génn nañ fa bu fekkee xaalis dafa war a dem def nañ fa suñu xaalis yaakaaru kenn ku dul yàlla suñu borom nee naa njiitu réew ko ci ay problème xaalis maire Mbao ba dinaa ba bureau am secrétaire bi dina ma woo ma woo mais Khady Ndiaye ne ko carrément wax Abdou Karim Sall dama ko soxla wax ko jigéen bi xew yëpp boo gisee ma def noonu comme ma fu nekk gannaaw Macky Sall balaa maa yem ci Macky Sall war naa war a mën